fekke mbir mi ba alerte dëkkandoo yi moom kat moo ci indi ay leeral. man gëj naa kaa gis moom toll na ci ay juróomi fan moom lu ajjuma daal yaakaar naa ne ajjuma laa gis suba teel gis ko mu toog foofu di fóot waaye depuis boobaak léegi moom gisaatuma ko ñaa dimba tey moom di punta nooyu ci kër gi may dégg man maa xëy di bale kër gi xeeñ na lool bale gaa ngi ci roq ba fee la jël sama balay mu xeeñ waaye dama na kañaa fi dee man loo mën a ah kër gi da moo lii bëri mi kañaa fi dee te waaye nit moom munta nooyu moom ba heure añ mu gën a xeeñ ma añi ba ñëw toog sama yaay ñu bëggoon doon sax ma ne xaaral ma ñëw sangu ji biñ si gars romb ñi ñuy toog sax suba baa ngi ne taa yaa ngi koy gis ma jël satala gi dem ca wana wa munoo romb foofu ah, man fii li muy xeeñ moom garaaw na de daal ci laa génne daal di ñëw daal ne kii eh, ñoo gën ay góor yi Ibrahima Thiam ma ne ko numéro Boubacar eh, ku ko ko ci am woo ko ba xam ndax man gañ naa kaa gis te fii ni muy xeeñ waaw ma xel dafa ñaaw sëñ Touba xam ne yàlla tax waaw xet gi ma dama a fii boo yéegee ci plan bi rek munoo nooyi ñoom ñi ñëpp jóg ñaan kii la lii kay du xetu kaña kee toog ne kee taxaw daal lii du xetu kaña lii bu Boubacar boo dee dafa faatu ma ne ko amal ah, da gën ñaakaa gis xaaral def Alane na numéro ndax Alane Ndiaye dafay fréquenté fa toog bi ñëw bu ma wootee ñoom ñu taxaw fii ci buntu euh, kii bi buntu néeg bi ñu ñëw yée kay xeeñ ñi ci lañu wiiree ñoom ñëpp na lii lii boobu Boubacar boo est-ce que ci biir ci la kee fiqi fiqatante ba xeer bi daay dajjee ko ak projet bi ñu gis ko ci noonu mu sukk mel ne lu su jonkam teg bopp bi loolu ma ma yëree sax damaa daay daw ma xam nga ñemewuma ñaa woo leen sappoor mun sukkandikoo ci kàddu yi xam ne ni bàyyeekoo na ci soxna maam Jaara mi dëkkoon ak kii di Boubacar diirum ñetti at yi ñu fi nekk moom kat amut ma yàlla ak kenn te seenam dëkk rafetoon na lool dëkkandoo bu bu bu maandu la te yàlla rek tax na ba mu fi dëkkee léegi ëpp na ñetti at waaye su la rombee dina ma nuyu maam Jaara sawa Boubacar da ngaa def mu ne maa ngi su may fekkee may balas mu ne hey bëgg nga balee balee balee balee rek rey bee set na ba déggul olof bu baax musta wax man na baa jërante yeneen xabaar yoo xam ne nii bàyyi ko na ci dëkkandoo yi nga xam ne nii jotuñoo àddu ci suñu micro ne kat moom bi muy ñëw fii ci Touba yàgg na lool boobu sax bokkuloon ci diine islaam fii la daal di tuube wax nañu itam ne daf doon jàngale doon joxe ay cours particulier rawatina nag ci marché Ocass ay fréquentation itam daanaka kenn daawut ñëw di ko seeti daawut seeti kenn